loolu sax ci loolu les grands. yow da nga am problème. ban problème la am man. yow sa problème mooy. Hmm. Youssou Ndour. Hmm. yow danga bokk si ñu ko defar. bu baax. Euh, yow danga bokk si ñu ko yar. Hmm. danga bokk si ñu ko tóoj. tingóob ko ba mu dem. moom loolu fu mu toog daf koy wax. daf moom nangul na la ko reconnaître na la ko mais yow tey. grand danga ko mere wan ko ginnaaw. doo wax ak moom du wax ak yow est-ce que loolu du problème yow yaa waroon tey grand Youssou Ndour sa booy la nga jël sa téléphone woo ko ne ko booy fekk ma place sàngam wala maa ngi ñëw fa nekk ba pare li nga bëgg mu def ko nii nga commencé ko si xëcc loolu defoo ko grand daw da nga ko mere rek toog lañ sa mer toogee ne ku la moom mi yow mii grand. lii nii danga nga ne Youssou da nga ko mere woowul léegi léegi nga ko sax. woowu la woowoo ko. xam nga non envoyé nañu ay ay émissaire ba tey. Hmm. mais gis nga man dama lay wax benn affaire. waaw lu tax nga nga décliné. loolu waaw mais dégg attends déglu ma nag ma wax la. waaw ah bu fekkee yow da nga nekk émissaire yu Youssou tey laa koy xam dama ne na ay émissaire ay nit ak yooyu man j'ai pas de problème spécifique ak Youssou Ndour ou avec qui que ce soit. mais appelle-le. non attends attends j'ai pas j'ai pas de problème spécifique euh, ou spécial. ma le numéro am naa numéro kay am naa ko. waaw woo ko grand. am naa ko dama wax leen ne man man. bu bu fekkee ni culture Sénégal te yàlla rek tax may wax. sincèrement bu ñu bu ñu amee bu ñu amee bu bu culture bi respirer tuuti. ma xam ne acteurs culturels yëpp Sénégal ñëpp kontaan nañu. ah bu boobaa nag danaa ko woo naa waxtaan ak moom mais aujourd'hui on sent que au niveau de la SODAV à tous les niveaux. ah au niveau des quatorze régions que nous avons fait. mais lu tax nga bugg ko moom Youssou Ndour rek pointé ko du doigt que moom la moom la waa kii waa la wax lu tax. mais Tounkara mais moom wax na ko léegi. mais Tounkara attends wax loolu. mais Tounkara xaaral ma jox la benn ma ñëw dernière question wax nga ko nee yow da nga ko mere. waaw bu baax léegi yow lan mooy tax mere bi nga ko mere dañ. lan la war a def pour nga kontaan si moom. Voilà, ça c'est une bonne question. Merci. J'ai posé wow. une bonne question. non non non c'est c'est magnifique. Question d'émissaire waaw gis nga euh, gis nga man li tax may may may may wax ñu bari xam nga El Hadj Ndiaye keroog dama ko dégg. mu ne Youssou Ndour moo woowee sax du ma ko jël au téléphone. Hmm. El Hadj Ndiaye ko wax. ba pare mu. bay laay day mer loolu laa doon eh, wax. non defal ndànk mer boobu nag. Hmm. attends attends on va on va parler sérieusement quand même mer boobu c'est légitime. ah d' accord mais c' normal. d' accord mais foog ñu am ñu ko giifal def non non ah. amul giifal. Hmm. fii amul dara amul affaire yu giifal yooyu El Hadj Ndiaye bu dafay mer parce que li ñu ko def dafa jar mu mer. Ah, d' accord voilà loolu. loolu nag laa lay expliqué Youssou Ndour ma dama ko meree hmm. parce que loolu no noonu daf ko def te ba mu dee doonee xale lu ne dégguloo man la sama yaay bi ma jur man hmm. daf daan ñëw moom toog di may nelaw moom Youssou Ndour sama yaay naan leen naan naan leen booba tey xale la ñu. Mhm. mu nekk suma xaritu jeune frère bi topp ci man. Mhm. sama yaay naan leen bàyyi leen sama doom ji ngeen di yee bu leen koy yee noonu koy toppee nii booba temps ñun ñu alors ma ñu jaar foofu yëpp aujourd'hui mhm. bu gisee ni man dama mer. moom mën na jël téléphone am wala mu saxlu mu yónni. waaw léegi yónni ma Samba wala ma Demba yónni nañu bari ñooñu du ma wax ak ñoom de. léegi dinaa wax Youssou Ndour man kilifa laa de dama lay wax leneen. d'accord grand kilifa nga ah. léegi man dinaa wax Youssou mu woo su ko defee mu ñëw si yow yow grand homme nga te loolu moom du ko bañ vraiment ñëw jéggalu la si li nga mer mhm. après commencé topp yoon bi nga xam ne moom nga bëgg Euh, parce que yow li nga bëgg rek. au service de la culture. exactement des acteurs culturels bon c'est vrai que ñun ñëpp tey. ñun ah, ñëpp tey euh, am nañ déception si ni que. bon Youssou Ndour bi mu nekkee ministre de la culture mënoon na gën a propulser culture loolu ñoom ñëpp d'accord nañ si bon. Euh, institution yi nga xam ni euh, yor na ko tamit bon nu mu koy doxalee ñun acteurs culturels yi ñun ñëpp kenn àndu si. dëgg la koy dox bon loolu yëpp d'accord mais grand. waaw. solution solution solution président. man non non man damay damay dama lay damay yokk benn affaire. Hmm. xoolal xoolal par exemple dañu wax tout à l'heure le président Macky Sall. Hmm. regarde ce que le président Macky Sall a fait pour la culture dans ce ah. pays-là. Ah, c'est étonnant. Ah, président Macky Sall c'est exceptionnel c'est extraordinaire. moi je salue je dis. mes respects et mon admiration à monsieur le président Macky Sall. waaw waaw koy wax nag. bay na waar bon président waaram de. président message bi nga bëgg. waaw mu leer naa ñu lan la. man xam nga lan la d' abord. a euh, commencé euh, les le ministère de la culture. Tounkara est-ce que remarqué nga dara. Hmm. à chaque fois on a un ministre de la culture. Hmm. mais